Une impression de satisfaction, mais surtout de détermination pour que le combat puisse se poursuivre et s'intensifier. Nous sommes là rassemblés pour la bonne cause, pour la République. Et je pense que le Sénégal d'aujourd'hui ne mérite pas toutes ces agressions-là. Nous devons, comme un seul faire face et résister à ce pouvoir-là. Trop, c'est trop. Nous avons besoin de plus de démocratie. Nous avons besoin d'élections euh, libres et transparentes. Nous disons non à toute manipulation du code électoral. Nous disons non à toute caporalisation du processus électoral. Ce que nous voulons, c'est des élections libres et transparentes. C'est cela qui ressemble à notre pays. C'est cela qui ressemble aux valeurs de dignité, de job, de kersa. C'est à notre histoire. la marche de notre à l'an 2019, qu'on puisse assister à des élections contestées comme le Sénégal. Nous avons de notre sueur, de notre sang, Pour en arriver à ce stade-là, il faut approfondir la démocratie. Et nous sommes pour le combat, pour l'approfondissement de la démocratie et pour surtout la liberté d'expression et la liberté des personnes. L'opposition a toujours répondu en masse et elle continue à répondre en masse. Et ça va s'intensifier. Nous sommes là Nous représentons Manko Taou Sénégal derrière notre leader charismatique, le député maire Khalifa Ababa Kersal. Il n'est pas normal pour que le maire de la capitale soit mêlé à ces opérations de déstabilisation ou d'intimidation. Cela ne nous fait pas peur, cela ne nous fera pas reculer. Nous nous dresserons comme un seul homme et nous nous battrons pour la victoire de Manko Taou Sénégal et pour l'approfondissement de la démocratie. mais mbégte ak yaakaar mu am ci réewu Sénégal gis naa ni Sénégal fa mu nekkoon démb foofu la ñi daan bañ a ngi bañ ndax li ñuy bañ la nit ñi war a bañ la góor war a bañ war nañu bañ ñu xoj démocratie bi war na ñu bañ ñuy jënd nit ñi ak alal ndax alal ji ñu jënd réew mi alalu réew mi la nañ ko dugal ci réew mi doomu réew mi liggéey réew mi jëm ci kanam mais tey foo dem xaalis amatul ñoom ñi ngi pasar pasare alalu réew mi di jënd nit ñi pour ñu ànd ak ñoom ci parrainage bi noonu la koy defee ci élection yi loolu jaaduwul nuroowul ak suñu réew nuroowul ak taxawaayu Sénégal bi nga xam ne ay ati at ñu di ko xeex pour démocratie jëm sa kanam tey ñu toll fii ñaaw na ci deru Sénégal jamono bi ñuy wax ak yow am na ay sénégalais yoo xam ne bu ñu sañoon nekk fii ak ñun ñu nëbb leen jant bi tëj leen ci ay waxu kasaw-kasaw dëppawul ak doxalinu réew mi dëppawul ak taxawaayu réew mi moo tax ñii fi taaw ji ma jàpp ni ñu bëgg seen réew ñu bëgg alal réew mi jëm ci kanam ñoom ñoo fi daje moo tax maa ngi naan ca kaw ca kanam ngir Sénégal ca jëm ca kanam. sakku tafi ci yi lan la sakku yi lan mais élection yi gis ngeen ni mu demee am na ci bari ñoo xam ne jotuñu seen carte te bëgg nañ jot seen carte bu ñu demee ñu leen dem leen fii dem leen faa xamuñu fan lu ñu jëlee seen carte fichier bi li ñu doon wax nañ leen wan fichier bi dëgg-dëgg ba léegi kenn waneguñu fichier bi li ñu wane mooy portail te loolu dëppoowul ak démocratie jàpp naa ne ñii fi nekk tey seen xeexu dem mooy suñu xeexu tey mooy Sénégal gu leer Sénégal xam élection mën na am ci jàmm ak salaam ba ki gagné gagné kañu gagné nangu ni gagné nañ ko sargal ki nga xam ne moo gagné mais loolu pour mu mën a nekk foog mbir mi leer foog mbir mi aw ci yoon aw ci yoon woo xam moom mooy yoon wi xam mooy dalal xel mais lu ñu gis lu xel yi tiital lu ñu sax et moo tax mënuñu ci ànd mënuñu ci d'accord looloo waral askan wu bari bi yëpp daje fii pour jooy benn jooy boobu.